moo moo ñu ko sant moo ko sant premier ministre. Mhm. ci article cinquante. cinquante cinq. Mhm. ci article cinquante cinq. je pense que. Mhm. constitution bi moo nekk au-dessus de tout. bu fekkee constitution bi daf ko ko sant daf ko war a def léegi nag ni mu ko war a defee mooy constitution bu la ko santé te nga xam ne à l'Assemblée nationale. le règlement intérieur am na ay manquement pour ñu pour nga mën ko def. mais jaaral fi nga war a jaar pour ñu. defar manquement yi rectifier règlement intérieur bi indiwaat li nga xam ne moom moo ci manqué. et je pense que côté boobu dama xaw a sentir que ne c' est l' assemblée nationale qui devait provoquer le PM mais c' est le contraire c' est le c' est le PM qui provoque l' assemblée nationale. et côté boobu noonu nag jàpp naa ne xaw naa ci am ak njaaxle tuuti parce mm. que moom mi nga xam ne moom mooy l' exécutif moom moo yor gouvernement moom moo waroon a gën. jege moom moo laaj réew bu ñu jox ko ko moom moo waroon a gën a yor ay position yoo xam ne day gën a fédéré gën a jege gars yi waxtaan ak mm-hmm. ñoom pour ñu mën a ànd ak moom liggéey parce que askan askan baa ngi seetaan te askan bi du seetaan mooy lépp loo xam ne nii état bi war na ko def digganteem ak assemblée national na ko def muy fexe ñu tegaat yoon règlement intérieur bi mun a def déclaration politique générale parce que loolu mooy tax askan wi xam fan la jëm te assemblée nationale aussi moom mooy contrôler les actions du gouvernement assemblée nationale aussi pour mu contrôler koo xam ne ni tey defoo sa déclaration politique générale. Mm-hmm. du yomb donc loolu c'est une obligation boo xam ne nii. Mm-hmm. war na koo mën a def te war na warul sax xaar ñu ko koy wax mais dafa war a jël les dispositions nécessaires yi nga xam ne war na. pour ñu comme ni suñu député comme ni ko suñu député yi defee déposer benn projet de loi pour mm-hmm. euh, euh, defaraat règlement intérieur bi pour mhm. le premier ministre Ousmane Sonko mën a jaar donc loolu c'est une obligation je pense que loolu moom warul sax maanaam doon loo xam ne ni maanaam def cee war a nekk di hésiter di xaar mhm. parce que dafa doon loo xam ne nii mën da ñàkk mhm. ci côté li nga xam ne moom mooy déclaration politique générale waaw assemblée nationale bi nag dañ koy tas wala duñu ko tas je pense que waruñu koo tas te waruñu koo tas mooy man euh, euh, euh, xam nga puisque ñun amuñu ay élection mi mandat dafa am dëkk yoo xam ne dañu am ay élection mi mandat yoo xam ne boo demee États-Unis day am mais ñun amuñu ko donc tey bu fekkee ne nguur gi ñëw day ñëw nga joxandoo ko lépp même bu fekkee dafa da dafa jaar à côté noo koy contrôler je pense que euh, ni ñu def ni assemblée nationale bi ak ak ak yi ak ak présidentielle yi am décalage de deux ans c'est mhm. comme ça élection législative yi nga xam ne moom mooy ñëw day doon ay élection yoo xam ne nii élection mi mandat lay doon. Mhm. xool ndax askan wi adhéré nañ carrément ci seen politique waaw wala déet. Mhm. donc man je je suis à que ñu bañ a tas assemblée nationale. parce que aussi euh, je pense que gouvernement bi tey li mu war a def mooy. lépp loo xam ne nii waxoon na ko ci programme am te mu war doon ay proposition de loi na ko def ci ay proposition de loi jébbal ko assemblée nationale. Mhm. jàkkaarlook ñoom askan wi jugé. maintenant bu demee ba assemblée nationale bañ bëgg ko bloqué bu boobaa mën na jaar par exemple wala mu dissoudre ko. Mhm. mais instant yi nii damaa gisagul loo xam ne jar na fi loo xam ne nii euh, ñu war a wax ne crise institutionnelle am na man entre l' assemblée nationale et l' donc lépp loo xam ne nii war na koo def muy ay réformes yi nga xam ne bëj ci projet euh, de loi bi nga xam ne day criminaliser l' homosexuel na ko def ci ay moom moo ko war a def. Mhm. di ko proposer assemblée nationale. Sénégal yaa ngi doon Sénégal yi ñoo tas. Euh, les bi institutions budgétivores mais na def ay proposition de loi yoo xam ne nii daf koy permettre mu yóbbu ko assemblée nationale. Mhm. ne ko lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg. bu fekkee nag nationale bi dafa bañ ne lépp loo xam ne nii nguur gi. bëgg na koo def. ci côté yooyu nga xam ne ni moom tënkoon na ko ci programme am. assemblée nationale bëgg ko bloqué bu boobaa nag askan wi mooy jugé boobaa nag ne assemblée nationale bi nañ ko tas. mais pense que tey mun jox leen a ma ñu jox la nga ne mënumaa gouverner sans la majorité à l' assemblée mhm. je pense que. dafay dafay bëgg a doon benn. je pense que non war na la assemblée parce que mhm. assemblée nationale. Mhm. waa PDS a nga fa. Euh, député taxaw yee nga fa. yeneen yaa nga fa jàpp naa ne ñooñu Sénégal lañ fa nekkal. te lépp loo xam ni indi nañ ko fa te njëriñu réew mi nekk ci député yi danañ ko voté jàllale ko lépp loo xam ne aussi jàpp nañ ne ay gàllankoor la aussi boo ko fa indee danañ ko càmbar juyantiwaat ko ba teg ko ci yoon ma nga xam ne bu ñu ko voté jàllale ko dana doon njëriñu askan d'accord merci euh, monsieur Sène bi mi ngi soxal du samay wax des marchands ambulants yoo xam ñu ngi wax que ni dañuy regretter déjà l'élection de pour pourquoi parce que euh, gis nañu yenn dig yoo xam ne digoon nañu leen ko bu ñuy def campagne bi aujourd'hui ñu ngi subir yoo xam ne euh, jàpp na ni moom moo tax ndaw yi si bari di di jël li nga xam ne moo di gaal rapidement rek foofu. vraiment rapidement euh, am na corrélation entre ñu jegeer piir la jël gaal gi parce que mhm. j'ai vu ci je pense tribune kuy wax ñaar ñoo xamee ni mhm. dañ leen dañu tas seen xawma dañ leen jegeer piir wala dañu jële foofu ñu dem faatu nañu ci gaal gi mhm. euh,